And what about it? This is this Gambia people. Yeah, yeah, yeah, yeah, Right now, right now. Yes, my, this is my people, New York, American youth. This is Tananulka. Yes, yes, yes. Senegal. Yeah. Gambia. Yeah. Yarana says this is in my people, Father Kaliyaya Jame. Yeah, yeah, yeah, yeah. God bless, God bless Africa. President Yaya Jame. is a very gentleman. Yeah, yeah, yeah. Yaya Jame is a gentleman. Right now, right now. Yaya Jame is a very guerrier. Yeah. Because Yaya Jame, you help in his disease diplomacy and my time and you can yes, you can Yaya Jame. Yeah, yeah, yeah. <laughs> God bless Africa. God bless Africa. Fine. xam naa ne su ma waxee tuuti ci af olof dina leen jaaxal. non yow. oh God Africa, God bless Africa. Yes we can, yes we can, yes we can, yes we can, yes we can. Okay. Sleeping down. Get to the ghetto. Get to the ghetto. Sleeping down. Yes. soo gisee ma wax tuuti ci Wolof. because président Yaya Jammeh is a gentleman. nit ku yàlla dimbali la. parce que ay doomu aadama bëgg la rey yàlla suturaal la ba nga dundoo. jàpp naa ñaari doomu aadama yoo xam ne dañ ko bëggoon rey ba mu dee waaye yàlla sutura ba ma jàppale. vous savez xam ngeen ñun américains yi suñu intérêt dafa nekk ci Gambia bañ Yaya Jammeh mere ñu moo tax ñu jàpp ñi teg ci loxo Yaya Jammeh ñu koy ñaan ñii ñu koy jox mu tee leen atte jot leen mu atte leen incha what is it Africa Unity Africa Unity We are still in Africa. United. Yeah, yeah, yeah, yeah. And about it? This is Gambia People United. Right now, about it? is it? Yeah, Obama, Obama, Obama, right now. Okay, okay, okay. Please me your sissies. Please me your about it is this? maa ngi ñaan ya yaa jaame. na xam ne diggante Gambia ak New York. jamraat nañuy seq incha allah rabi eh, pour monter pour monter pour wan ko ne ñun amuñu problème ak Gambia dinaa ko feccal man Obama what is this Obama this ok right this is it the green yes we can red and blue I see it in blue

Ó, caralho! Ai,